waaw dama lay jox euh, chiffres yi officiels yi. 2014 mm. 4 virgule 2 pour cent nga am 2015 5 virgule 6. 2016 6 virgule 2. 2017 7 virgule 0. 2018 6 virgule 3. 2019 6. 2020 1 virgule 9. 2021 6 virgule 2. bon 2022 nag ñu ay 5 pour cent cinq cinq pour cent. Mm-hmm. loolu mooy taux de croissance Sénégal boo ko jëlee ci chiffres yi nga xam ne moom lañu joxe. man chiffre du ma ko man chiffre du ma ko contesté pourquoi parce que depuis 2014 bul fàtte ne ay idées yu baax dañoo ñëw ci réew mi pour bi. xam nga booy calculer PIB bu ma jox la formule bi. Mm-hmm. dañ la le PIB est égal à consommation mm-hmm. plus investissement. Mm-hmm. plus exportation moins importation. loolu mooy noonu la ñuy calculer PIB. donc consommation bu augmenté. PIB day augmenté investissement bu augmenté PIB day augmenté exportation bu augmenté PIB day augmenté mais importation bu augmenté day nasaxal PIB donc boo comprendre da nga xam ne donc le fait que investissement massif ñëw fi ci pour pétrole ak gaz mhm. moo justifié nga jóge ci 1,9 pour cent en 2000 en 2020 ci table Covid bi dem 6,2 pour cent xam nga la ñoo njëkkoon la wax ne ay 4 pour cent la mhm. Mhm. ñu yokkaat ci pourquoi parce que booba calculé wuñ ba mu jeex loolu c'est normal mais yow tey jii taux de croissance de 6 pour cent boo jëlee benn PIB boo xamante ne bii dix huit mille milliards la mais dix huit mille milliards nga appliqué ci six pour cent de de de kii six pour cent de de croissance xam ñaata la. Hmm. xam ñaata la mille quatre vingt milliards. yow mille quatre vingt milliards boo ci génnee deux cent milliards de bénéfice Sonatel génnee ci bénéfice su euh, Olivia benn Sénégal moomu ko ci. Hmm. génnee ci bénéfice su Bolloré. génne ci bénéfice u total génne ci bénéfice u marocain yi lan. ah mais donc 6 pour cent am njeexital. si askan bi moi c'est pourquoi je dis je ne comprends pas parce que j'ai pas vu benn benn bien-être boo xam ne. mais loolu la mu ngi méngoo ak 6 pour cent yi. parce que croissance Sénégal day dugg ci ay